gàllankoor ñu daal ba muy dox loole la waa MEDES doon waxtaanee ni ki dëmb ak pexe yu yees yoo xam ne dinañu ko mën a nas loole bokk na ci li wundu ndaje mi nga xam ne démb amaloon nañu ko ca King Fahd waaye nag ay boroomi xam-xam ay expert yoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum koom ak secteur privé national ak continental ñoo fa daje woon ak pouvoir public ak décideur économique yi ñii ñëpp bokkoon nañ ci ñi nga xam ne fekk nañu ndajeem démb mi yéen a ginnaaw coronavirus bi ak jafe yi nga xam ne moom la réewum Sénégal am ci lu jëm ci wàllum kooma loolee nag maanaam dafa daal di jar gaaw ñu daal di waxtaane ko rawatina nag teg ay jéego yoo xam ne yu ngande lay doona waaye nag yoo xam ne yu efficace lay doon teg ci nag daal di bara ndax nag ñu mën a jubbantiwaat sunu koomu réew ba mu mel na meloon loole nag li nga xam ne moo ko mën a def mooy nag ab dynamique sociale bu bees ak solidarité boo xam ne bu mucc ayib lay doon loole nag bu ñu ko maanaam nag ndam mën na cee am li am ci yéenekaay gi di Quotidien nee na démb ca ndajeema Abdou Karim Fofana mi nga xam ne moom lañ dénk ministre du commerce ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum petite ak moyenne entreprise moom nag nee na état bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum relance économique ñi nga xam ne nag ñoom la ci gën a yaakaar mooy entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye nag secteur privé national bi Abdou Karim Fofana nee na nag coronavirus bi ak na loo xamante ni nag état bu Sénégal jàngee na ko ci waaye tamit lu toll ci ñaari milliards yoo xam ne état bu Sénégal dimbalee na ko lu toll ci cent quarante cinq entreprises entreprise yéen kaay gi délibération bàyyi mbir moomee wax ci jëm ci wàllum politique nee na Macky bi mu taxawalee gouvernement bi ba léegi frustration baa ngi mel ni tulleeg màlle Abdoulaye Balde moom nag dañu ko jox maanaam poste président commission ci assemblée nationale Abdoulaye Balde daf koo daal di gedd ndax nag yéeguluñ ko ko bañ ko koy jox yéen gi de Les Échos Aboubacar mi nga xam ne mooy porte parole parti bi Abdoulaye Balde bii nee na Macky Sall am ci Abdoulaye Balde ñoom dinañu ko daal di lijjanti yéen a kaay gi de la quotidien neexul ba neexul waaye nag Abdoulaye Balde mi nga xam ne zappe nañ ko ci gouvernement bu yees bi mer ba maara de tale yéen a kaay gi de la témoin waa Idrissa Seck lan mooy ëllëgam ci lu jëm ci wàllum politique ginnaaw bi ñu taxawalee gouvernement bu yees ak lañ ko société waaye nag nommé ab premier ministre yéen a kaay gi fas papali xëy tey jii ci ab gerewaat loole nag moo tax kilifa yi tiit nañ ba maara de tali ñi nga xam ne nag ñooy waa ASECNA ñoom nag nee nañu danañu jël seeni matukaaya maanaam dàquñu sax képp koo xam ne yaa ngi fay jéem a gerew a maanaam ñu toppale ci lu jëm ci wàllum yoon teg la ay daana ndax nag gerew la boo xamante ni bu illégal la tegewul ci yoon loole la waa ASECNA wax waaye nag liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ay AIBD ñoom nag nee nañu danañu gerew ci nii wala ci naa te nag bu ñu gerewee mën na la gis nga gàllankoor yu bare bare bare la mën a indil Sénégal yéen kaay gi de la turbina xëy duñu xibaara ci lu jëm ci wàllum politique nag nee na Macky Sall ginnaaw nag bi mu faagaagalee ki nga xam ne mooy Karim Wade ñu ne déeta waay Macky Sall daal di faagaagal ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall ñu ne déeta waay Macky Sall jamono ji mel na lu songu Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko mbiri Ndiaga Diouf ak mbiri nag Adji Sarr journal bii di l'info nee na nag Macky Sall dafa mel ni armu Macky Sall daal armu Macky Sall mooy fexe ba ay adversaire am duñu mën a bokk ci élection manam ni mu def Karim Wade Khalifa Sall ndax du la ñu bëgg a def Barthélémy Dias ci lu jëm ci mbiri Ndiaga Ousmane Sonko ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr waaye nag est-ce que askan wi danañu ko nangoo loolee fa la mbir ma nekk te mooy laaj ba yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Assane Samb jël xalima ma nee na Afrique ma ne la dina jafe lool lool lool adduna bi nag daal di respecté Afrique li nga xam ne nag moo ko waral mooy coup d'état yi nga xam ne maa ngi mel ni tulleeg man la ci Afrique waaye nag ñi nga xam ne ay cef chef d'état lañu africain ma ne la gis nga jël constitution bi di ko doxalee nu mu leen neex ma ne la gis nga coup d'état ak nag jël sa constitution di ko xàppati di ko daggal sa bopp di sopparñe loole ci boppam bokk na ci li nga xam ne Afrique dina jafe ci moom ma ne la gis nga àdduna bi respecté ñoo yéene kaay gi de la Réveil Quotidien nee na njombe am na de scandale journal bi nee na lu jëm ci wàllum njaayum pétrole ci anam bu jaarul yoon ca Nigéria tudd nañ ci ñaari kilifa fii ci Sénégal scandale am na kenn ki Moustapha Niass la mi jiite woon Assemblée nationale kenn ki baaba Diaw bu Itok ñaar ñii tudd nañ leen ci lu jëm ci njaayum pétrole mu tegewul ci yoon ay luubal ay ndëngte ak lu jëm ci wàllum corruption ne la quarante cinq milliards journal bi nee na ñaar ñii Moustapha Niass ak Baba Diaw Itock seeni compte bancaire yi nekk Suisse ma ne la fa la ñu versé xaalis ba yéen a kaay gi di source xëy di ñu xibaar naa ñu nag njombe am na ci hôpital Matlaboul Fawzayni sa Touba ndax dafa am benn xale bu jigéen ab étudiante boo xam ne ñaar fukki at ak ñett la ama dafa ñàkk bakkanam ci hôpital Matlaboul Fawzayni yaayam ci journal bi di source nee bi ma ñëwee ki nga xamante ni naka maanaam moo jiite liggéeykat yi ki jiite agent yi da na wax na leen xale bu jigéen bi bu leen ko ko ndax dafa am hypertension waaye nag ñi nga xam ñuy ñooy kat yi dégguñu la seen kilifa googee wax daal di koy opéré fala la daal di ñàkkee bakkanama loole nag moo tax ay mbokk am jamono ji mer nañ ba maara détaillé yéene kaay gi délibération xëy di ñu xibaar mbir moo xam ne mu garaaw a garaaw la nag mbir mu doy waar a doy waar la mën la benn charlatan benn njabarkata benn xale bu jigéen moo ñëw fekk ko rivis ko naan ko man dama bëgg nga ñaanal ma ndax man dama am faru rapa waaye nag charlatan bi nee ma njabarkat bi daal di koy drogué ba mu ko drogué ba pare